jour suñu xëyee di wax pour affaire femme yi autonomisation autonomisation la ñuy wax mhm. dafa mel ni ñu dañoo atteindre émancipation te professeur rappelé na ko sànq émancipation femme yi dafa des te émancipation ak autonomisation émancipation mooy vole politique autonomisation mooy volet économique loolu dafa ko relier loolu il faut ñu xool femmes yi nu ñu leen ci jàppale ñu avancer on parle d' autonomisation ñu naan financement jigéen ñi entrepreneuriat mais yow doo dem di financer ay jigéen walla ay groupement fekk amuñu formation hmm. donc le plus gros problème des femmes aujourd'hui c'est la formation hmm. et l'accompagnement parce que soo amulee loo jàngul mënoo ko tari hmm. il faut ñoom formation mën li ñu leen di jox ñu mën cee liggéey ba pare accompagnement yooyu ñuy wax lu ci ëpp soo ko xoolaatee il faut se dire la vérité usure moo ci ëpp. Mhm. ndax danga naan kër sànq ci début njëkk nga wax ne. femmes yi dañu nekk ci benn stade ndax violence boobu di wër di jaay pendant des années nekk ci loolu ndax violence boobu ñoom ñoo ko teg seen bopp. non parce que jàppale bi ñu leen war a jàppale c'est un accompagnement homéopathique maanaam dañ leen koy jox par petite dose duñu leen jox pour ñoom ñu fireeku benn yoon dem loolu aussi la war a xoolaat nun koy. régler c'est très très important. Mm-hmm. loolu su weesoo on ñu ngi ŋaññu góor ñi góor ñi jàppale ñu jigéen nangam nangam ñun jigéen ñi nga xam te ni ñun ñooy yaay ñooy jur ñooy yar suñu doom yu góor yi dañ leen war a yar ak benn mindset. maanaam <laughs> benn idée waaw boo xamante ni amul taas dañuy dañuy yërëm seen déedéet du loolu sax non non que seen sœurs yi non ñu gën a jege seen sœurs yi nga loolu si san ci éducation bi la ci nga koy cultiver soo cultiver loolu si say rakk yu jigéen say grande sœur am na yenn acte de violence yi sax soo màggee yow doo ko doo ko mën a def en tant que góor donc ça sax je lance un appel aux femmes pour ñu xoolaat ne plus aussi donner parce que lu yëngu si kër yi il faut le dire ah ñun les mamans on la priorité aux garçons ne góor ñi la nangam parce que on mise plus sur les garçons que sur les filles il y a des sociétés comme ça dañ naan xale yu góor ñoo gën a mën a am aptitude de réussite donc lépp lu ñuy def léeg sax yaay gis ay ñoo xam te ne dañuy bàyyiloo jigéen di jàng mu dem di jaay di def dara pour financer les études du garçon am na am na fi donc yooyu yëpp loo xamante ni la dañ ko war a xoolaat émancipation bi daal moom il faut qu'on arrive à sax sur l'émancipation et que la femme elle-même elle se libère de ces invisible parce que chaine yooyu moom moo ko defaral plafond de loolu loolu